asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum 8 fay rek Fall 94 Walf Sénégal dellu si waat di leen indi rek li nga xam ne daanaka mën naa ne dafa dal ci kaw euh, senegal mooy seen doomu réew di koo xam ne nii wax dëgg ràññee nañ ko ci li nga xam ne ni moom mooy métier noonu lañ ko mën a waxee muy euh, showbiz bi mu nekk muy wallu Seck euh, nekk koo xam dafay def ay tournée Euh, mu demoon fu mel ni Maroc ñu dégg ni wax dëgg dafa def foofu benn soog bu ndaw soog boobu noonu nag wax dëgg yàlla boo gisee euh, internet bi réseaux sociaux yi fépp ñu ngi koy partagé saa su nekk waaw di wane ni maanaam Wally dafa def soog mais alhamdulilah sunu doomu réew la nag wax dëgg yàlla te yaakaar naa ne ci réew mi la jógee te euh, ci côté ci lii muy yëngu wax dëgg yàlla ràññee nañ ko ci lool. waaw mu nekk nag euh, nit koo xam ne wax dëgg yàlla ci taxawaayam ak ni muy doxalee tamit ak social bi muy def yëpp gis nañ ko ci moom kon nag lu mel ni bu ko dalee lu baree bari danañ ko yëpp waaw beneen bi ci des nag mooy fi mu ko defee soog bi waaw ñu ne ki ko mbëkk dafa daw kenn ki sukkoo gi jaju marocain yi de lu ñu bëggut a xam kay laay laay wax waaye lu ñu bëgg a xam ak ku ñu bëgg a jàpp ak dégâts boo mën a def ak bu mu mën a doon bu leen neexee balaa suba ñu jàpp leen bu leen neexee balaa suba ñu jàpp la waaw loolu moom xam naa ko ci marocain yi ndax marocain yi moom sa waay développé nañ développé goo xam ne nii mënoo faa def loo xam ne nii mën nga koo def ba noppi te dara du la ci fekk xanaa kay mbir mi ñu bañ koo topp ak ci aju yooyu noonu rek waaye bu fekkee moom nekk na loo xam ne nii dañ nii mënuñu koo jàpp loolu moom dañu defee ko ci dëkk boo xam ne man dëkk boobu xam naa ko dëkk boobu moom ku fa def dégâts marocain yi euh, xam ne yow mi da ngaa def tega bu leen neexee def balay ngoon ñu jàpp la loolu moom xam naa ko beneen bi ci des tamit bu ñu fàtt ne suñu borom moo bind doomu aadama yi te doomu aadama yi dañoo bari te wuute te kenn ku ci nekk da am yoon woo jaar yoon woo noonu nag mën naa nekk yoon wu nekk waaye nañu maandu rek te xam ni suñu borom moo bind jaam ñi kenn ku ci nekk. la mu nekk ba am ca la mu am di ca tedd nañ ko ko yéene te ko te nag suñu boroom moo bind jaam ñi de gis na jaam ñëpp te xam ne jaam ñëpp dana dellusiwaat ci moom bu fekkoon tey képp ku tooñ suñu borom suñu borom rëq sa digg ci ni mu gën a gaawee yaakaar naa dana bari ñoo xam ne dana rëq seen digg ci ni mu gën a gaawee ñi ñëpp di ci teg seen bët te nañu maandu bu baax nag ci lu baree baree bari te kenn ko ci nekk la nga nekk mu doy la sax nga nekk ci rek te ñu bàyyi nag wax dëgg yàlla mbindeef yi nga am suñu borom moo leen bind kenn ku nekk lam la bindee kenn ku ci nekk ak ca la nga jaar kenn ku ci nekk daal li nga nekk na nga fexe noo ci muccee loolu daal lu gën la loolu daal moo gën wax dëgg yàlla waaw. beneen bi ci des nag moo di nañu yéeneente jàmm tamit Sénégal nañu yéeneente jàmm bu baax nañu gën a yéeneente jàmm bu baax buñ ko defee rek Sénégal dina dem. yaakaar naa ne ndax ñun ñëpp benn lañ ñoo bokk ndey ñoo bokk baay dañuy xàccandoo di dóorandoo yaakaar naa ne suñu borom moo ñu fi indi te ñun ñëpp danañ delluwaat suñu borom kan daal yaakaar naa suñ borom li ñu fi indi kenn ku ci nekk sa mission moom danga ko matal moom ala kulli yaa xam ca fànn boo koy matalee daal waaye suñ borom mi la indi moom ci àdduna moom bala nga fi jógee da matal mission boobu moom doora dellu ci moom waaw ala ndax gis nañ fi milliardaire boo xam ne bu fekkoon ay milliards yi tee dee dañu dee te ba mission mu matee suñ borom bindoon na ne kii dana doon milliardaire bala muy faatu di delluwaat ci man dellu siwaat ci man dana doon milliardaire ba ñëpp xam ko ràññeeku ko waaye bu ko ñëpp xamee ràññeew ko moo xam mu jëriñoo woon euh, milliardaire moo xam mu ñàkk woon ba jëriñoo mais dana dellu siwaat ci man buy dellu siwaat ci moom nag du ko tàggu ñu mu ko indi woon te tàggu ko buy delluwaat ci moom it noonu la koy yóbboote du ko tàggu kon nag ñu xam ko indi na fi koo xam ne ni wax dëgg yàlla nekk na fi ba souffrir ba faatu ba bayu fi fi dara te suñ borom gis ko kooku ak ko yor milliards yi moom la yamale dong waaw ñoom ñaar ñëpp moo leen bind kon daal ñu xam ni moom nañu maandu rek ci jaam ñi waaw ku ci nekk daal la nga nekk na la ci nekk daal am na euh, loo nekk loola na la doy te ñu yéeneente jàmm bu baax buñ ko defee daal réew mi dina euh, jag ndax kenn ku ci nekk mën ngaa jot sa wërsëg ci ni ko mën a jote ca la nga nekk voilà loolu daal mooy li ci des tamit mooy ñu gëm sunu bopp bu baax kenn ku nekk boo gëmee sa bopp li la sunu borom leen ci àdduna moom da ci jot bu àllaaxira nag mu rawati waaw kon nag euh, Fall 94 Walf Sénégal lii la leen indi xanaa rek di ñaanal euh, Wally yàlla gën koo yokku ndax sénégalais la wax doomu sénégalais la ku nekk xam na ko ci réew mi ni fi taxawee taxawaay bi kat ñu ñaanal ko rek ndax wax dëgg yàlla ndogal moom fu ne lay jógee nga xam ne lii dafa bokk ci dogalu suñ borom yi rek ndax lu am rek ak ku ko mën a def ak ku mën a doon rek